génération am nga benn respect boo ko jox ba ci ñun ñu mujjee ñëw respect boobu la ñu gis ci suñuy mag suñuy jur ba mu tax na ñu jox ko ko te moom itam loolu la véhiculé xeebul kenn xeebul ni kii xale la xamul ni kii sama morom la xamul ni kii mag la wax dëgg yàlla fu ñu ko woowee fu ne mu wuy suñu muy père Fallou Dieng ñu nuyu ko bu baax a baax jox ko waayam bàyyi ko téléspectateurs yi itam comme ni ñu leen ko waxee chaque a sa part de responsabilité muy les influenceurs muy les chanteurs muy ñi nga xamante ni itam ñoom ñoo di chauffeurs si ak ñi nga xam ni ñoom ñooy nguur gi kon nag la responsabilité est partagée raison pour laquelle bu ñu ko dalalee dafa mel ni dalal nañu képp koo xam ne yaa ngi artiste nga ba pare toog sa biir kër père Fallou ñu bàyyi la aussi nga nuyonteeg téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seen kër toog di seetaan. waaw jërëjëf euh, salaamaaleykum Kheucha. sama doom maa ngi lay nuyu. maa yow ku la gis da lay respecté bëgg la parce que da nga yaru. da nga jox respect ñëpp tamit wax dëgg yàlla gis naa ni nga cëralee xale yi. xale yëpp ànd ak yow. macha allah ko loolu yaa ko yaa ko yaa ko prôné moo tax. donc euh, ñoo ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. di nuyu waa téléspectateur yëpp. 2S euh, ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fii ci réew mi ak bitim réew ak diaspora bi yëpp ñoo ngi nuyu ku ci nekk di leen wan nii namoon naa leen te euh, gëjoon naa ci télé bi waaye nag su ma fi ñëwee tey sama doom a tax parce que moom daf maa boole ci programme am ba tax na fu ma war a damay sawar pour ñëw euh, ma gis ko nag muy góorgóorlu euh, ci côté yu bari yoo xamante ni wax dëgg yàlla mu ngi fa féete wàllu ndaw yi dawal cëram bu baax a baax a baax a baax ci xale yi loxoom set nag trop tamit mu nekk koo xamante ni day gëstu te nag ñun kuy gëstu rek ñun dañuy sawar a ànd ak yow parce que malgré ñoo ngi ci musique bi mais tamit gëstu la ñu àndal gëstu lañ ci àndal. Mm-hmm. di xool ci thèmes yu am solo amul thèmes yoo xamante nii mu ñoo ngi koy dund en ce te man woyu ma ci. Mm-hmm. ak samay morom woykat nag yàgg nañoo woy de. Mm-hmm. ça donc euh, je pense que su ku déglu woyu coon bi nga nga tàkk nga tàkk nga. Euh, mu doon sa mu doon sa waay mu doon sama mag. na nanu nekk ci àdduna lay ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin yaa rabbi yàlla na ko yàlla fay li nga xam ne def na ko ci askan wi mooy askanu Sénégal ndax bind na fi ay thèmes yoo xamante ni ba ilaa yow mi diini nit ñi dañ ci euh, jariñu hmm. donc euh, maa ngi koy ñaanal daal yàlla yàlla na ko yàlla jégal daal amiin amin ñi ngi lay gërëm ñu itam bu baax a baax a baax di ko kontaane moom per Fallou ndeysaan léegi-léegi rek xam naa ne ci biir waxam mu ngi naan ma sama mag ji dafa teew ma ko benn yoon chaque vendredi euh, bu ma demee ca Almeria maa ngi sëgg ci bàmmeelam di ko ñaanal kon nag loolu itam ñu ngi la koy gërëmee waaw loolu moo ñu war loolu parce que man dama nekk xale ndeysaan su ma ko tàllee loxo grand bi tàllal ma loxo nee ma dinaa ñëw sa sa sa moment yooyu xale lañu. mais dama ko su ay ma ko tàllee loxo invité ko sama émission bu mag muy diapason wala lu mu mën a doon. Mm-hmm. coon day déplacé wu ñëw. ñëw woyal ma sagal ma xam nga tey ji bu ñu demee ba nekkatu fi. may dem armée ya toujours di ziar sama yaay. rus naa dem ziar sama yaay te jaaruma si coon sekk. ndeysaan ñaanal ko. ndeysaan ak mbooleem ñi fa tëdd aussi. donc euh, loolu moo ñu war loolu lañ ko deseel. te ñoo ngi ñaan ñëpp di def di ko defee noonu di ko ñaanal parce que tamit. wax dëgg yàlla ndaanaan la boo xam ni demee na fi ko réew mi soxlaa dëggantaan. la mu dem parce que xale yi sox euh, soxla nañu papa soxla nañu ku leen teg euh, sur la bonne voie. Mm-hmm. te ci tànk yooyu la la nekkoon ba ni mu fiy jógee amul kenn kuy artiste fii Sénégal te coon woowu la. nga def moom wallaay euh, moom nga def ak moom diwo tàggatoom daal voilà tàggatoom dafa doy waar daal. <laughs> daa doy waar <laughs> daa ñi ngi lay gërëm euh, yow itam ci euh, act bu noble boobu nga def ndaxte mënoon nga fa dem ba jóge fa te itam doo ko xool donc ñi ngi lay gërëm bu baax a baax a baax di la ci ñaanal yàlla guddal sa fan. amiin itam sàmm la bàyyi la fi bu baaxa a baax a baax a ndaxte am nga njariñ loo xam ni def nga ko ci réew mi loo xamante ni itam ay œuvre la yoo xam ne moom yi bu ngeen demee ci YouTube bi mën ngeen ko vérifier ay thèmes yu baax a baax a baax yu mu way xam ngeen ni bés bii ñu toll nii dañ ko nattoon man ak moom depuis ma woo ko ni ko euh, Père Fallou mu ni ma waa Kheucha ma ne ko de mercredi bëgg naa ñu def émission ci saa si mu ni ma amul benn problème yàlla def li muy def yàlla defee li muy def itam euh, mu xam ni dañu nekk ci tiis dawul benn yoon émission bi xam na ni sénégalais yi ñu ngi koy xaar itam te euh, comme que waxoon naa ko looloo tax mu wuy si leen tey ngir euh, ja euh, waxtaane nag li nga xam ni mooy wàllum accident bi waaye itam le rôle d'un naka la war a mën a comporté woo ci ay text ba mu tax dina mën a éveiller ñi nga xam ne ñoom ñoo di jeunes yi yàgg naa way te xam na luy way kenn mënu koo ndax ci way ndaxte wax dëgg yàlla ànd naa ku ne dem na fu ne itam kon nag on aura l'occasion vraiment d'en parler et mën ngeen woote yéen itam pour participer ci 88 600 28 14 ou 13 ndaxte yéen tam ci ngeen bokk bu ngeen ci amee avis ak li nga xam ni euh, euh, am na lu ngeen ciy sànni mën ngeen ko def ndaxte euh, depuis lundi yéen a ngi woote di wax seen colère di woote di wax lan mooy solution ngir ñu jële fi li nga xam ni wala ñu wàññi li nga xam ni moom moo di wàllum accident fii ci Sénégal Père Fallou naka nga gisee accident ba am bërki demoo Ndiaye fële ca Kaffrine. ah yow wàllu tiis bu metti rek dimanche bi ma sama. portable laa njëkk xool xool information yi mais bi ma jamee ci loolu damaa jóg toog tudd yàlla te xam ne tiis wu metti dal na ci kaw réew mi tiis wu metti dal na ci kaw askan wi tiis wu metti dal na ci kaw famille yi tiis wu metti dal na ci kaw ay gox fii ñu nga xamante ni ñoo bokk benn gox ma jóg toog ñaan ñaan suñu borom ni tiis bi kat metti na lool lool lool tout d'abord damay màssawu ñi nga xamante ni ñooy famille yi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo ci am ay dese di leen jaale au nom de tous les artistes sénégalais di leen jaale di leen massawu di leen xamal ni tamit yàlla moom ay mbiram noonu la bu soxlaa rek jaam day ñàkk waaye nag euh, mu doon loo xamante ni tiis boo xamante ni képp kuy sénégalais wala sax ku dul sénégalais kuy africain dégg euh, accident bi vraiment am nga ci